mardi 4 octobre 2022 dal leen ak jàmm si Public SN jël leen seeni i kaasu café guux guuxee déglu ma ma indi leen seen revue de presse ngeen may déglu sans stress yullil ma yéen yu kaay yullil yullil stop l'observateur baax na waay Mimi Touré mu jaaxle moo nekk ci xët wa Mimi Touré sur siège électronique maanaam dataa Mimi daraam leeragul fi mu ne mandat députéem ji mën na tax suuf daal daanaka akub cereem ca assemblée wa APR mën nañ cee xëpp suuf Aliou soirée ma ngay àddu ca yéen kaay ba di ñu leeral Doudou Wade it naka doonu dee tata mi bu ngeen bëggee dégg dëgg gu dem bët setagul dee mii mii ngi ñëw mii mii ngi ñëw des na tuuti ñu soppi ko mii mii ngi dem mii mii ngi dem yu lil ma la tribune ndi ku coromu ndaw moom Karim Wade xol ba seddul te ma ngay fippu Karim ne d'accordul si am na si gi ñuy ruumandaat coow li bu nu ko tegul ci suuf PDS si boppam lay génn ne fes teg ci ne menteng dem yoonam Saloum Sonko yëngal na Ziguinchor démb source A Sonko les échos Sonko 24 heures Sonko. li ko waral kii di meeru Ziguinchor ba ne cinq milliards lay laajte ngir defar dëkk ba te xaaru ci état ndax doomu dëkk ba la laaj ñu booloo cotisé defar seenu dëkk. nee na Ziguinchor waratul bokk ci ñetti région yi gën a ndóol fii ci Sénégal ña muy liggéeyal moom Ousmane Sonko tëkku na leen nee na ku jël lu toll ci dërëm ci xaalisu waa Ziguinchor ba caabi dana la féete ginnaaw cancer bi sonal na jigéen ñi lii quotidien moo ñu ko xamal 11000 nouveaux cas détectés 3717 cancers gynécologiques plus de 7000 décès dont 2200 issus des cancers du col et du sein bilay cancer yaa ñu sonal ay waay cancer yaa ñu soral étudiants yu jógee bitim réew ñëw jàng ci Sénégal jafe-jafe yi ñuy dund ñu ngi ci xëtu lii quotidien dund gi seer na ci ñoom transport seer na ci ñoom loye cher na ci ñoom Charlène di doomu Gabon di jàngee fii ci Sénégal mu ngi ñuy nettali ci xët ba nee na moom mësta xalaat ne jafe-jafe yu mel nii bu ñëwee ci Sénégal dana ko fi dund nee na mës nañ ko cambriolé sàccub ordinateur am yóbbu téléphonam yóbbu télévision yóbbu ay dàllam yóbbu gerefaasam maanaam daal sàcc ba ba duggee ca biir néeg ba moom rek la fa bàyyi nee na Sénégal boo fi déggul wolof moom tey nga dee njaay cekkee ba mbii fa fooree ba lu ne ñu teg sa der ba yaakaar na déggoo dara di la kokkalee ñaawal li woykat bi doon wax kaay ma jox la paas jox la yóbbal jox la sërica nga bañ moom Charlène ku ko jox paas jox ko yóbbal jox ko sërica ndakaaru dina ko namm dee maa nga ca sport ba tey même soose li ñu defoon démb moom la ñu defaat tey génnul si te Papa Sow la tribune yéen a kaay stade lamb ji Sadio Mané Yankhoba Diattara ak kubam mu ne tocc toccaaral di xaar 2022 kon wax naa si démb duma ci waxaat tey comme yéen jënd ngeen ko démb bu leen ko jënd tey xanaa neex di daje suba incha allahu fii ci Public SN bu leen fàtte aimer te activer seeni cloche man moom ba subaa tii ma dikka tii te yulee tii